waaw Ibrahima Kane la ñu gën ko xam ci Vieux Kane Al Amine. Mhm. Euh, Vieux sëñ Vieux élection locale yaa ngi ñëw ñiy jongante bari nañ loolu muy Diop si Diagne si mi nga xam ne mooy le maire sortant euh, am na Ababacar euh, Sy Ndiaye am na Ablaye Ndiaye Ngalgu am na Maodo Gueye kan nga yaakaar ne tey ji bu jëloon mairie Tivaouane Tivaouane gën a sukkaliku ci niñ ko yaakaaree. waaw mbir mi de amatul yaakaar parce que itam xam nga kiy def ñuy gis. ak kiy cof duñu benn te itam ku ne xam na ni ki fi nekk di Mamadou Diagne si Mbengue suñu frère euh, suñu lépp parce que ñoo bokk nañu lu jiitu muy doon maire bokk nañu ay jato jotaay yu jiitu muy doon maire mais tey jii bu fekkoon man ci sama gis-gis Diagne si liggéey na ci dëkk bi lu tax ñuy wax liggéey damay wax ni bu bu doon may moom bu doon may moom tey ma toog place liggéey lu tax dëkk bi ñëpp gis ko non du ma dem di def campagne parce que boo nekkee ci dëkk defal dëkk bi wax dëgg yàlla boo bu dee yow jëf nga jëf joo xam ne tey jii am na empreinte ba ñëpp teg ci seen bët dama naan man bu ma tëddee nelaw. kon lay campagnal daal. nit ñi ñoo lay campagnal mais moment bii ñu toll damay wax ni bu doon may moom damay denc sama xaalis te dem tëddi nelaw. kon daal da nga bëgg a wax ne ni moom jarul amul bilan. amul bilan te bi ci des mooy man gisuma ko gaañ si buñ ko falee ban ban rendement la am. parce que koo xam ne yow ñaata at ñu fal la ci dëkk mu noo fee wax ni lii man maa ko fi def tey muy Abdoulaye ngal Ngalgou moom itam di taalibe ci kër gi di ku baax parce que jotewuñu dara te itam yàgg nañu seq teraanga waaye nag ki gën ku ne dafa am ku leen gën. mooy kan mooy Demba Diop si. parce que Demba Diop si maa ngi am ak moom relation depuis 2012. 2012 ba tey li fi ba Diop si di def ak li muy jëm a xëcc ci Tiwaawan te itam lépp di poosu boppam ak euh, xolu boppam man damay wax ni buñ ko joxee dëkk bi dina dem te itam am na ay partenariat yoo xam ne ñu ngi ca bitim réew Diop si am na xam na nu ñu wute xaalis xam na nu ñu yore yore dëkk ndax plateau ba mu fa nekkee gis nañ avancement ba fa am pourquoi pas Tiwaawan ñoo jël. li nga xamante ni mooy dëkk bi ñu jox ko Demba jóob si. yaakaar nga ni daal kon li Tiwaawan xaar mu ngi ci loxo. Demba mu ci loxo Demba Diop si te loolu du dañ tey dëkk bi bu defaroo ci gannaaw yàlla ak barke maam Seydi El Hadji loxo Demba Diop si mu ngi ci biir. ndax maa ngi seetlu euh, oto mbalit yi mu fi njëkk indi may ko xadara bi ñu bind ci don de Diop si ala xadara de Seydil Hadji Malick si ñuy jël mbalitu dëkk bi parce que xam nga dëkk li ko gën li ëpp important ci dëkk mooy set ndax set ci jaamu yàlla la bokk mu njëkk laa proposé loolu ñu ni waat dénn waaye ñaata emploi la Demba Diop si jël ci dëkk bi ay jigéen ñoo xam dañ daan taxawaalu ay góor ñoo xam ne ñu ngi daan def na ko sudul noonu demoon na ba teewaan ay agression bi daf fi bari woon mais jóob ci ak xam-xamam mu ni dinaa jéem a xool ville verte Tivaouane li nga xamante ni mooy garab yi ñu ji ko mu ni dinaa jël ay am ay jeunes ñuy arrose garab yi bu ko defee ñu mën di am chaque fin du mois donte bu dee soixante di mille la sax tey jigéen ñooñu ñëpp ñu ngi ciy liggéey plus de trois cents éléments jël na leen wala lu ko ëpp. kooku mu ngi jàppale dëkk bi. amul werante amul werante te itam ñun suñu engagement jeunesse Tivaouane bi mooy jëlaat dëkk bi. dénk ko Demba Diop si parce que mooy suñu arrangement ndax itam xam nga kaay ñu ànd ma may jën neex na lool waaye nga jàngal ma ni ñuy nappe moo ko gën a neex te Diop si fas yéene na taxawu ndawu Tivaouane yi taxawu ndawu xadara bi taxawu itam euh, département de Tivaouane yemul ci Tivaouane kese département bi yëpp fas yéene fu ne mu am ñum ca jël pour jàppale leen ba ñu mën a sellal seen gox mën a jàppale seen gox ba Tivaouane dem ci beneen anam ndax ku xool résultat am au soir du 23 janvier. ci kattanu yàlla te bu génnee itam. wiiw rek ngay dégg ci barki sëriñ Serigne Babacar. boobaa incha allah niñ dellu si waan jërë ngeen jëf. soxna si. tur beeg sant bi. Ndeye dem kër Baba Alima. soxna si maire yi xëccoo mairie ville bu Tivaouane ndax xam nga leen. xam nañ leen kay. Diop ah, si Diagne si Ngalgo. man daa ñooñu laa joxaam. ak Maodo Gueye. ak Maodo Gueye. ñoom ñooy xëccoo maire bi. yaakaaroon ne ne tey bu jëlee ci mairie bi eh, Tivaouane eh, maanaam avancement bi gën a jëm kanam. ah Diop si moom bu ko jëloon avancement bi dina jëm kanam man nag du ma farak kenn mais moom am nañ ci moom yaakaar daal. mais Diop si moo fi nekkoon. si moom moo fi nekkoon mais mi ngi toppatoo population bi daal ku ci liggéeyul mi ngi lay jox liggéey ku ci amul woon xëy tamit mi ngi lay lijjanti te nekkagul maire kon ni dinañ am ci moom yaakaar waaw am nañ ci moom yaakaar bu baax ñu ngi koy sant na di ko gërëm. en tant que femme lan la defagum ci yéen. ah mi ngi wut set setal dëkk bi xale yi de chômeur mi ngi leen di jàppale ñuy liggéey te loolu lépp ku chômeur nga jàppale ko ñëpp nga jàppale askan wi daal mi ngi leen di jàppale en attendant xaw ma nag bu faloo ni muy mel. mais Diagne mi fi jot a génn euh, ma Diagne Sy bi nga xam ne moom mooy maire sortant Macky Sall teg ko fi euh, lan la def ci dëkk bi. ah Diagne moom wax dëgg yàlla xaw ma ci moom lu bari na man gisuma ko ci benn ndaje <laughs> miinu ma ko daal man daal Diop Sy la. daal mooy mooy waaj. asalaamaaleykum Diop si daal mooy waaje ndax moom daal lanu gis loxoom guddi moom la ñu gis loxoom bëccëg moo ñuy bëggal guddi du ñu bëggal bëccëg di bëggal suñuy gone. kon daal jàppale jigéen ñi. si daal jàppale na jigéen ñi te yal na ko yàlla ak sëriñ Babacar si teg ca kaw yàlla ba mu wàcc loolu laa koy ñaanal ma. da ngaa gis ni moom moo gën ci mairie bi. ah moom daal sa baatam ca raay ba. waaw ci xam naa ñu ëppit ñu ëppit boo laajee Diop si rek Diop ngay dégg Diop si Diop si yow moom ngay voté Diop si man kay saaw carte moom laa koy jox saaw carte moom moom laa koy jox saaw waa kër moom lañ koy jox moom daal def naa ko ci sama xol moom waaw sëñ bi ñiy jongante ci mairie waawan mi ndax xam nga leen waaw xam naa xam naa leen waaw kan kan nga ci jota ah, Diop si Diagne si Ngalgu Sidiña ak Maodo Gueye ñoom kan nga yaakaar ni moo gën ci waaw man daal bu ma sañoon moom yeewi askan wi ñoo fi nekk. waaw man moo tax. waa ñoom ñi ànd am naa si ñoom yaakaar mais à part ñooñu daal ñeneen ñi moom Macky Sall lañ te ñooñu man ànduma ñoom ooma si ñoom yaakaar daal. le maire sortant gisoo ne am na lu fi def. Hmm, kan si. le maire sortant Diagne si Mbengue. si waa si xam nga def fi dara moom loolu du du du du yëfu nit def na fi dara mais mënoon nañ am plus. li fi def mënoon nañu am lu ko gën. tey ci ñoom ku falu woon looy xaar ci moom en tant que jeune. waa ndaw ñi moom li ñu gën a bëgg mooy liggéey d'abord bu loolu amee bu loolu amee ba pare maanaam nga gérer leen parce que ñun amuñu lu dul commune bi amuñu lu dul Tivaouane Tivaouane kese la ñu am mais boo xoolee ville bu mel ni Tivaouane yow mi fi ñëw sax xam nga ni yow ni nga doon dégg Tivaouane ak bi nga egsee li fi nekk du benn mais xoolal xoolal lii comme village. ville boo xam comme village mais loolu c'est c'est c'est pas normal si ressource bu bari nekk fi jigéen ñu lool ñu war di ci gis suñ bopp amul dara luñ ci yéege suñ bopp loolu bu fekkee wax nga ne ñi fi nekk baax nañ tamit da ngay wax li la neex rek mais askan bi kenn yow sa bopp. mu jàpp bu baax a baax a baax surtout ça. usine yaa ngi fi te awoon kenn waru woon a somme ci liggéey benn jeune MD la fi ICS a ngi fi. amul benn jeune boo xamante ni yaa ngi jóge fii nekk embauché wala ngay nekk journalier mille personnes la ñuy woo journalier boo dikkee ñu jël cinq yi bàyyi ci des ñu dem bala nga jot sa salaire sonn. kon daal yéen a ngi xaar ci maire yi ci lu jëm ci loolu. non si ñu ngi leen ciy xaar moom ñu ngi leen ciy xaar bu baax baax ñun ñii ñëpp boo xoolee fii ñàkk xëyee tax ñuy def lii am nañ ay métier am nañ lu ne. débrouiller jënd sa moto di ci suturlu yaag sa waa kër kese mais loolu du liggéey boo xamante ne bu mën a continuer la. daa yoru kër. non non yor na kër parce que ci lañ yor suñu kër mais nag nekkul liggéey boo xam ne boo âgé di ko continuer liggéeyu jeune la da nekk jeune def ko boo nekkatul jeune mën a toog kon boobu liggéey du buy continuer waaw loolu la ñuy xaar daal ci ku fi mën di nekk mais man nag su ma sañoon moom euh, yeewu askan wi la ñuy jox fii nii quoi.